Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd établissement Mbaye et Frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee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 به قد قنيت اليوم عبدا بذكره وعني يكف العار والنار والزباب بي قد خنيت اليوم عبدا waaw jërëjëf xanaa di sant yàlla rek tey sant sëñ Touba ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg loolu te ànd ak wér wax dëgg yàlla ñu ne fii ci Libreville di waaj ngir dem yomba eh, ñu ñëw fii ci turu Soxna Bali Mountakha moom sëñ son bu ànd Soxna Maam Faati moom sëñ Saas Fall bi sëñ Basiru waaye fekk fi nag taawum bu baax bi di sëñ Maam na Mbàkke mu sëñ taxa dikki gi dafa daw yaram ndax bisub tey bii la eh, la tey la le 11 août démb ci waxtu wi ña ngay màggal tuuba ca ña màggal ca Mbacke yi 10 août gi sëñ bi déparé woon démb ko màggal kon buñ ñëwee fii ci Gabon ñu koy tey la 11 août fas yéene fekki ji bëxru maa yomba ka nga xam ne fa la sëñ Touba demoon kon loolu doy na taw tawfeex ndax démb la sëñ Touba yandu jeewal waaw fanaan fa ba bisu tey bii nii waxtu wi ñuy xëy ñun di dem maa yomba ci la sëñ Touba xëyee jeewal jaar kokki jaar Louga waa réew ma ne ko danga da nga fiy des nu xareel la sëñ Tuubaa neen loolu taxumaa jóg su ma ko daan defit banaa ko kon wane na ni moom daan na xare kon bu ne sax dillaaw bi indi waaxid min ahli badrin xaafa min ni jaayidu kon loolu moo ko waxal boppam mu jóge fa daal di jàll ndar kon tey jii la xëyee woon jeewal dem wuti ndar ndax dane ayasa min ni laaw inda jeewali iblisa isnatee taxoo bi yaawali nafaal xeet laaw xablu fi ndari bi ahli badrin usuudi ka dari nafaal xeet laaw fi ndakaaru ku laasan jarohu makaaru allamani rahmanu fi safina bi annani haddi musil madina bara anillahu la daa konakiri min kulli jalibin ilal manakiri asaba anillahu fi garam mbasa xablu mbaris wani halbasa dahaani rahimu inda dawmi loxoo bi maax na ani tasawumi yasaaralil mu naa la daa wali muy fii ñu taxaw man xaadil maa ba an kulli wali lillahi xad wasaltu indagalwa wasanani ama jutu yaar a ramat xuur alla ma ni alimu inda zahirat zahirat nag ñu may sawa kafaanit kaafiraat léegi lum lum lum ca teg nag ñu may sawa kafaanit taatira alla ma ni alim inda zahirat de kaafiraat dem ba ci biir nag daan ne kon saaxali xayr laaw fii maa yumba maa saaxal bi waxalal jan baa kon nag foofu ñu jëm la fa sëñ Tuubaa la mu fa daj ñun ñii di fa jëm ñii rek deminu metti la ñuy dem moom aéroport bi rek ngir nga ko coono yi ngay def ci aéroport bi rek war tax sa dem ci jëmmi sëñ Tuubaa ji nga xam ne moom bi mu fi dugg moom ci gaal ko jaarale fii ak maa yomb moo gën a sori Dakar ba Bamako kuñ ko wax te yeggagoo sax yow da ngay xalaat yow ci sa xel loolu nu mu mën a nekkee te ñoo ngi jaar ci tali te di nga dégg sax koo xam dana dugg ci sakkuus daan ne yu métti na te moo ne moom de bi muy dem xoolul sakkuus dégg nga a kasoog fetal karawaas ak jaasi lu tee sëñ Tuubaa di wéy jinaasi bu ne dal ko anam bu ne dal ko moo tax bi sëñ Masamba jàggee xasida maam Cerno daanu baat wala daaneel wala maxaarij bi wax ak fasaaxa bi mu ne ko déedéet mu ne ko maam a Tek suñ tubaa ne ku la ci a daane am na lu ko gën a roy mooy wax ji ka doon wax fa ko doon waxee kun fu yóbbu ku dul sa ji bu amee lu muy wax leneen lay doon wax ka katabtu yomb na wax ni wàcc al yomb na wax ni itixal yomb na waaye fa ko doon waxee nag fan la loolu mooy yëf kon ñu bàyyi ba àgg maa yomba marami yuxtini rabbun muqaddimun قديم لو ملك أو السرق والقرب lépp rek comme ni ko sunu kilifa gi waxee léegi rek am mbégte daal lañ ci def ndax coono yeeg yëpp Serigne Touba teggil nañu ko ndax liggéey bi mu liggéey ngir ñun ñu jariñu képp moom moo taxu li yëpp am ak fu nit mën a nekk ci àdduna ak kum mën a doon rek. sëñ tubaa sonn li muy sonn ngir suñu jëmm yi waaw loolu moom mbégte lañ ci am waaye santaat nañ sëñ tubaa ci boole gi ñu boole it ci ñuy ñëw ci bis bii di fi yëkkati xasaayit ak tur yàlla bi bég nañu lool barke Serap yàlla yàlla yokk ñëpp te defal leen tawféex barke maam Cheikh. sant yàlla bu baax rek di julli ci yonent bi sallallahu alayhi ndax damay faral di wax ni dem Màkka moo gën a yomb dem Gabon ndax Sénégal damay faral di wax ne dem Màkka mu gën a yomb dem Gabon ndax bariwaana buñ la doon wërloo Sénégal ku dem Màkka di la ci wutloo mille personnes yaakaar naa mën ngaa bañ a génn dëkk ba nga dëkk te du tee da nga koy am waaye buñ la doon laaj ñu jëm Mayomba ñu ku mas a dem Mayomba di la ci laaj fukki nit rek am na dëkk yoo xam ne boo fa dëkkee mën ngaa sonn pour nga gis ko. kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax ni ko ñi ko jiitu waxee rek fii moom ba fi sëñ Touba di ñëw ca mat ga ak sell ga ak ngor ga ak jom ja ak tawxiit ja ak wéetal ja yàlla booba demewut nii kon nag bu ñu yàlla tawféexalee ñu ñëw fi ngir topp jéegooy sëñ Touba dañuy sant yàlla bu baax a baax sëñ bi moo koy tawféexalee nit ci boppam rek waaye sax du ngóor a du njàmbaar gën a sant sëriñ bi rek nga xam ne fii ku fi ñëw sa pas-pas dana yeesaat waaw <laughs> ñu sant rek lañuy ñuy def sant rek nga xam ne yokkute la ci ñun sant rek mbégte rek dund bi ñu ñëwee léegi te fee ñu jëm ku fa jëm xam ne sa pas-pas day yeesaat ndax sëriñ bi dañ na fa lu ne kon suñ demee tey jii ba mën a bànneexu di fa dem sant rek lañuy def sant rek ndax xam nañ ne eh, ñëw fi defuluñ defuluñ yàlla lu tax ñu ñëw fi daal kon ñu ngi gën di sant sëriñ bi rek. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk julli ji mbokk taalibe yi tey noo ngi fii ci daayira Batabeya nu gën koo xam ci Matlabul Fawzeyni di ñaanal nag sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te wër départ bi nag noo ngi nii war a fii ci Bata Batabeya pour jëm Mayumba xol yi seddati na xol yi seddati na xol yi seddati na mbokki taalibe yëpp nga xamante ne danoo nekk fii ci dëkk bi nekk ci Gabon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 téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert